mbir mi lan la bon moo di ñun wax dëgg yàlla xeex yi ñu fi xeex yëpp ñoom ngeen fi couvrir ko muy xeex yu légitime mm-hmm. ñoom ñoo tooñ diina ji tooñ askan wi tooñ gor yi du ma fi nekk nag di détaillé yëpp fekk ngeen ko yëpp yoon jox ñu dëgg jox nañu dëgg ñii fëgg nañ leen si mois de prison pour de soirées privées que je ne sais pas quoi di def de l'exhibition sexuelle mm-hmm. ñii fëgg nañ leen un mois de prison ferme Euh, parce que dañ doon def acte contre nature dans un concert kii fëgg nañ ko six mois parce que dafa toroxal alxuraan toroxal jumaay deux mois rek la tëdd ñaan njekk ñu ubbil ko mu daw génn Sénégal saaga ñu ndey daw et cetera et cetera yooyu yëpp du ndam du dara waaye ndamu islam alors waaye yëpp nag. dañ ko lay taye ak jàngale sang bu tedd bi naa Mohamed dafa ne sa moroomu jullit bu tarxiisee mhm. bul ne bëri rek dem sa penc ma di ko xalaat ak di xaw yi si turam ñu ne ko waaw sang bi yaa Seydi mu ñu def mhm. mu ne na ngeen déyoo ak moom mooy baat boobu nga xam ne dañu ko répété ba mu boy seen ni nopp euh, wa am amruhum shura baynahum yéen jaam yi mhm. da leen di faratal shura shura mooy la tubaab di ko wax concertation wala di ko wax diisoo nee na nag fa iza boo sàmmoon teg principe boobu ba noppi fatawakkal alallah yi nga doog a wàccirlu ci yàlla alors moom la oustaz Makhtar Sarr def te maa ngi ko ci félicité ginnaaw ndaw si kaddu yu ñàkke teggin yu reew yu mu yëkkati teg ko ci euh, ndoddu sëriñu daara yi waaye Makhtar Sarr di wax ak moom ci njëkk ak teraanga ne ko waaye lii noo ko mën a waxee loo nangam mu ne waaw lii ma génne daal noonu lañ ma ko joxe tontu ko tontu bu gàtt tontu bu ñagas ba pare raccroché ko one ma ne oustaz Makhtar yow sa jaan wàcc na ndax euh, dëgg yàlla euh, euh, nit ñi war nañu moytu su amee ku nekk ci koñ bi am lu mu def naka si dul noonu nga nekkoon waa koñ bi yëpp baaxuñ nañu moytu loolu ndax yéen a ngi fàttaliku fii ci Wakaam 2020 am na fa ku woote woon ne sëriñu daara def lu ñaaw teggin mayul ma di ko répété fii victime yi def ay déclaration boo xoolee déclaration d'audition yi la ñu fa wax mm-hmm. teggin mayul ñu di ko répété fii waaye lan la oustaz suñu nijaay ju baax ji oustaz Dame Ndiaye def le président de la ligue des imams et des prédicateurs ils ont fait un communiqué ne kii bokk ci ñun mu daal leer nañ mm-hmm. setal deru sëriñu ñu yi mm-hmm. en juillet deux mille vingt trois yàggul mooy juillet bii fii la ñu toog ci Touba Ndambatu ku woote woone sëriñ daaral rawatina mu am turu tedd sëriñ Xaadim Mbàkke nga kooku tooñ na si Amadou Bamba mm. moom itam def yoo xam ne sur vingt sept fii duma fi joxe benn détail ndax dafa ñaaw mm. ma am benn presse en ligne ba mu doon jokkool moom boo xam ne mu nga mu nga nekk foofu sa Touba mm. mu di ma rendre compte heure par heure dem nañ ba am vingt cinq plaintes sa ëllëg sa mu wooma nee ma waaja manaam saay-saay bi def lii utiliser na ses relation et ses réseaux ba am nañu ñu commencé di def pression ci famille bi pour ñu retirer seen plainte si la Jamra def déclaration mm-hmm. daal dina ñu ngi yëgal famille yi ku ci retirer sa plainte saisir naa suñu avocat maître Moussa Sarr ndax yoon may nañu en tant que ONG ñuy def constitution de partie civile mm-hmm. boo leen retiré seen plainte Jamra wax naa ak maître Moussa Sarr d'accord na nee na yoon may nañu ko dinañu constituer partie civile poursuivre waa ji pour viol et pédophilie loolu moo may fit famille ba ñu daal di garder seen plainte ba ñu ginnaaw alors ba plainte ba eggee mm. au au au parquet de de de de de Mbacké mm. ñu ngi gërëm procureur bi ndax yónnee na bataaxal euh, au commissaire Thiombane du commissariat de Touba Ndamatou hmm. bataaxal bi ñuy tuddee soit transmis voilà daf ko ne soit transmis pour enquête et arrestation ni ko procureur Mbàkke waxee noonu la ko commissaire de Thiombane defee arrêté nañ waa ji nañ ko au parquet dóor ko mandat de dépôt depuis juillet caabi féeténoo ginnaaw loolu noonu la daara daara di yàgg di doxee protégé wuñu kenn la preuve yéen taskatu xabaar yi am ngeen organe bu mel noonu muy muy euh, euh, euh, CORED c'est votre organe de régulation mm-hmm. Mm-hmm. léeg-léeg benn taskatu xabaar bu bu bu jéggi yoon mm-hmm. dégg nga kenn daw boole ji ko fàtte naa ku baax ki jiite kuréel bi lu mu tuddati sax alors kooku daal di ñu woo waa parce que mooy c'est le tribunal des pairs bu fekkee la mu wax convaincre leen ñu exclure ko ko bokkutoo suñu kuréel kon nag amul benn kuréel fii ci Sénégal muy magistrat yi muy Euh, jàngalekat yi muy ONG yi boo xam ne amul des brebis galeuses mais am na benn ONG fi hmm. coowu UNESCO bii ma faram fàccee nii nga xam ne dañu bëggoon jël ngóor jigéen dugal ko dans le système éducatif mais kooku dafa leen appuyer nangu cee feeñ mais ñun xam nañ ko est-ce que tekki na nekk ONG yëpp noonu lañu ñu mel parce que ñun Jamra ONG lañ mais ka def loolu ONG la dëkk sa dëkk am ay nasaraan yu ñëw bëgg fi dugal lu bon luy xotti war ma jàngale si amul Bamba Maodo Baye Niass Baye Laye yow nga dëkk fii ci réew mi cautionné ko moyennant argent ONG la mais est-ce que tekki na ne que ONG yëpp ñoo yëpp loolu tooñ la alors moo tax nag oustaz Makhtar Sarr moo wax ci kàddu yu leer nee na ñoom seen bopp fu ñu amee firnde am na jëmm ju jóg di mbubboo fonction sëriñu daara def naka si dul noonu ñoom du ñu xaar kenn ñooy jëkk dal sa bu laajee yóbbu la ci procureur ñu nguufaan la yóbbu la ci procureur loolu koy lu leer la ma ñëw waaw waaw après ngeen laaj ngeen posé seen question alors kon nag il faut que ce soit clair te Makhtar euh, euh, Sarr hmm. utiliser na benn analogie nee na naka ngay jëlee boolu soow benn weñ naawa naaw dañ ne cëpp ci biir nooy def da ngay ceppi weñ bi sànni wala da ngay tuur boolu sow alors mu ne nag kon ndaw si euh, Nabou Dash loolu la def dafa ne boolu sow bi yëpp ay weñ kese la hmm. kooku tooñ la ah, alors bu ko defee nag hmm. euh, ma bëggoon wax ni Jamra dafa jóg taxaw parce que tooñ bi ñuy tooñ sëriñu daara yi mu ngi bëgg a jéggi dayo surtout ñoo xam ne dañu denc loon sëriñu daara ay xen diw wut bunte yuñ koy faje te loolu ñàkk teggin la ñàkk kersa la ak ñàkk kóllëre ndax sëriñu daara yi ñooy takk sëy sëriñu daara yi ñooy tudd doom yi sëriñu daara yi ñooy sang néew mm. sëriñu daara yi ku ci sa mbokk bu génn àdduna ñoo lay julleel néew bu ñu paree ngeen dem ba xel yi am ay wuute ci wàllu miraas koo leen di woo sëriñu daara ba pare sëriñu daara yemul ci eh, ñi ngeen xam ni rek xalif généraux yi ay seriñu daara lañ sëñ Muntaxa ayadahullahu wa nasruhu wa amara sëriñu daara la sëñ Babacar Si Mansour ayadahullahu wa nasruhu wa amara sëriñu daara la kon nag ndaw si lii mu def corporation bi yëpp la saaga parce que bu fekkoon dafa dem ci oustaz Makhtar Sarr ne ko ah, am na lu ma yegg de diw day diw nangam Makhtar saar mooy jóg mel ni gaynde jóg songa waa ji parce que du ñu suñu daara du ñu nangu kuy tilimal seen corporation di leen bubboo mais defu lool dafa ne ñoom ñëpp benn lañ dañu nangamtaan seen jarul may jaar ci kàddu yi daggal leen i saaga ndey elle l'a fait exprès kon foog foog yoon yar ko te comme dañu ne ci dëkku yoon te yoon hmm. nee kenn amul dans un état de droit nul n'a le droit de se faire justice soi dëkku yoon kenn amul droit di fajal sa bopp kon li Makhtar saar wax noonu la te na mu ko jëfee noonu la yóbbu nañu plainte auprès du procureur yóbbu nañ pour pour injure pour diffamation mm-hmm. ak jeter le discrédit sur une corporation yóbbu nañu plainte aussi ci commissaire Ali Kandé bu brigade euh, de cybercriminalité noonu la mm-hmm. léegi nag jokkoon nañ ci téléphone Makhtar Sarr mm-hmm. waaye dama la bëgg a yëgal ni sëriñu daara yoo xam ne maa ngi ko commencé ca Fuuta ci Idrissa Dia wàcc ci sëriñu daara Jamra yi Jidda Caaroy kaw jàmm gën si kaw ndaaw yemal noor ba ci seen doyen di imaam Abdul Wahab Seydi ñëpp ñëpp ànd nañu ak yéen ci xeex bi ndax mm-hmm. heureusement yónnee nga ma liste signataires yi. Hmm. c'est important ñu citer leen parce que bariwuñu heureusement kat la ñu. Hmm. mu di euh, oustaz Makhtar Sarr coordinateur Aar Daara signé na plainte bi. Hmm. imam Mansour Samb secretaire général de la fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal signataire la. troisième signataire la ligue des écoles coraniques du Sénégal si turu imam Khadim Ndiaye. mu ngi ci biir l'association pour la rassemblement des daara du Sénégal pour l'éducation et l'apprentissage bi Coran bu Oustaz Saliou congan sa doom bay mhm. mu ngi ci biir mhm. Oustaz maxtar Sarr nag maa ngi lay yëgal ni le collectif des sëriñu daara de Jamra ki leen fi toogal a ngi nii di Oustaz El Hadji Malick Dia boole ko ci signataires yi kon jamraa ngi ci plainte bi alors bu ko defee nag Jamra ngi yëgal képp ku jógati di song sëriñu daala ci kaw reewande ak maa tey parce que defoo ko dans un but constructif ak bëgg defar ak bëgg suuraa déedéet da nga tax ñoom ñëpp dugal ci mbalit ne kenn baaxul ku ko fi defati Makhtar Sarr dootul wéet moom kenn ci xeex bi ak yeneen kuréel yi Jamra dana ànd ak kuréel yi mu am yëpp ñu mobiliser ko ànd ak ñoom ci xeex bi kon nag loolu laa doon. Euh, leeral léegi dama bëggoon hmm. oustaz Aliou eh, eh, kii eh, El Hadj Malick hmm. nga wax ci sa làmmiñu bopp engagement wu sëriñu daara yu Jamra que signature lañ ci plainte yi waxal loolu après ma jox ko jox ko mu wax loolu après ma jox ko hmm. du discours dafay wax kii bi rek alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Mame ma macha allah li nga wax lu dëgg lu leer la xeexal xeexal yàlla moom nii rek lay demee du neex hmm. wante la ma waxoon rek dafa nekk in tansurullaha yansurkum hmm. su ngeen yëpp ci biti te ngay soxna nekk ci sëy moom tam vraiment mu wane woyof ñu def suura mu daal di dellu ginnaaw. d'accord eh, maa ngi gërëm tamit euh, maire Mbodja. Mhm. Ah, ñu di ko wax Mbodja hmm. Mbodja Njoge Jonge <laughs> moom tamit def nañu suura. parce que penc mi kenn moomu ñun ñii. gënuñu leen ñoom ñoom borom énétain yi hmm. ñun ñi gënuñu leen ñun ñëpp ay bàkkaarkat lañ ñun ñëpp mata di mais suñu borom moo ne ad diinu nasiha diine mottalinte la ak laayante biir hmm. kon nag dañu doon laayante biir waaye yàlla dogal na jigéen ñu ma tudd ñu wane woyof wane modestie nangu nee ma daal kon Jamra ñu ngi leen di baal wax mais mukk bu leen baal wax. Jamra ñu leen Jamra boobu kii di Nabou Dash. parce que fi fi ko Oustaz Makhtar Sarr woowee téléphone. fi fi mu génnee def dénonciation. ma ma ñëw alors te xëy na lii Nabou Dash mën na ko déglu inspiré wu ci. alors euh, jëmm yooyu ma tudd léegi euh, euh, mhm. ak Mame Ndiaye. bañ ma ne dañ may jégalu ma ne bu leen ma jégalu tooñu leen ma leen Jamra umma bi ngeen tooñ ñu ne ma waa kon ni ñu koy mën a defee ma ne nag ngeen tënku ci li lislaam wax ci charte tuub charte tuub ñett la mhm. benn bi nga nangu ne yaa tooñ ñaareel ba nga biral sa kàddu njéggal ba mu toq ci nopp ñi ñi ko war a dégg ñetteel ba nga jël engagement moral ne dootoo ci dellu si mu ne ma kon maa ngi koy def ma ne ko nag jarul muy guddal vidéo de deux minutes rek maximum trois ba mu ko defee ñu yónnee ma ko kilifa yi ma woowoon te maire yëpp ma jor yónnee leen ko ñu ne ah macha allah ndéem yàlla ku tooñ boo jéggalu mu jéggal la comme que ñuy jéggalu nañ jeex na kon ñoom kenn déggatu la ñu seen liggéey loolu mooy suura bu ànd ak yar ak teggin waaye kilifa gu day ni oustaz Makhtar Sarr woo na daas nee ko waaye li lii nga def nag yow tegoo ko fen su dul benn photo bu ñu la yónnee rek mu ne ne noonu lañ ma ko joxe oustaz Makhtar Sarr mënul placer un mot mhm. ndax tontu bu gàtt bu ñagas te ñàkk teggin ba pare raccroché ko one kon ana suura parce que suura ñaara koy def kenn mënu koo def alors donc loolu moo waral mhm. dinañ ko wan ni dëkk bi dafa am yoon dootul Makhtar Sarr rek mhm. dootul la Ligue des imams et des oulémas bu ñoom oustaz euh, Dame dootul euh, euh, daaral Quran wal Ihsan bu ñoom oustaz Aliou Dia mhm. dootul duha minal kitaabi wal sunnati bu imam ratib bu wakaam léegi umma bi yëpp kuréel yëpp ñoo daje jëflante ko ak képp ku jógati di ñàkkee teggin sëriñu daara yi sëriñu daara dañu am dara amuñu salaire amuñu paye du président Macky Sall la jox lu am solo euh, bàjjunu gox yi. Mhm. jox lu am solo dégg nga délégué de quartier yi chef de village yi ñu jox leen oto ak salaire ñii dañu am dara ñii dañuy def ci sabilillah mhm. ku jaaxle war a takk ñoom ngay woo. ku war a tudd doom ñoom ngay wo ku war a euh, dégg nga euh, jullee néew ñoom ngay wo fooy miraase ñoom ngeen woo c'est des piliers très importants yoo xam ne ñoo indi équilibre ci société ku leen dimbaliwul na leen may jàmm voilà kon nag nodd bi daanu na léegi kon euh, gars yi kontaan naa lool na ngeen eggee xabaar bi ba fu mu gën a yaatoo ndax lii bu ko état bi sàgganee mën na jur te ñu ko yàlla nag Oustaz Serigne daa jóg di fajal seen bopp waxuma ne dañ ko nar a def waaye eh, eh, eh, lii mën na ko jur ah, wala seeni taalibe voilà moo tax ñoom dañu sàmmonte ak li yoon wax c'est-à-dire bu ñu la tooñee bul fayu demal fi mbaxane nekk benn kon na ñu ngi jëm ci ay joŋante ñaan suñu boroom mu defal xol yi ñaan suñu boroom mu delloo si xel yi ndax sànq rek laa si doon waxtaan ak benn oustaz au téléphone li nara a xew le vingt cinq février deux mille vingt quatre suñu boroom ci suratul mulk ak ci yeneen ak yeneen i ayo yu dul jeex wax na ko nee na nguur maa koy joxe ba app ba jeex ma rocc ko ba mu set dénkaat ko ku ma neex par conséquent la war a xew au soir du vingt cinq février deux mille vingt quatre suñu borom ci àlluwaam bu tedd ba xaatim na ko bu yàgg. Mm. kon na lii parti politique yi def c'est normal moom la tubaab bi wax c'est de bonne guerre waaye nañ ko rafetal jarul daggantey saaga jarul bés bu ne boo déggee ci réseaux sociaux yi ñu naan audio fuité sur la vie privée de Thiongane. léeg nga dégg ñu naan grave grave dégg nga grave révélation de noo tudd sax <laughs> Seynou bu sans limite hmm. amul njariñ yàq diggante yi yàq xol yi yëkkati xel yi yëkkati xol yi suñu borom la muy def def na ko ba noppi kon nañ ñaan yàlla mu dàqal Sénégal seytaane te si suñu loxo la ne suñu borom nee na boo leen bëggee jàmm ngeen am ko boo leen bëggul jàmm yi itam man dama leen di seytaan bàyyi leen ak iblis ndax moo ko wax loo leen bëgg rek jiitu leen ma ci inna allaha hmm. laa yuxayiru maa bi xawmin hatta yuxayiru maa bi anfusihim yéen jaam yi bu leen yaakaar si man ma soppi day ni tarfatal ay ni ci seen nekkin hmm. lu dul yéen ngeen jiituma ci kon yal na yàlla dàqal réew mi seytaane suñu kilifa diine yal na yàlla ñoddi seen fante tafal ci wér yal na yàlla def jàmm ci réew mi te làq ñu Sénégal fu yàq yeggul wa salaamu aleykum wa rahmatullah